asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen baalu àq te di leen baal ah, di nuyu ñëpp ah, rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy safoo sur 3w inforewmi point com di bégewaat ñëpp ah, di bala ñu commencé nag suñu émission tey dafa am koo xamante ni du ñàkk ñu wax wax ci moom muy suñu benn tata suñu lépp muy tata Aïssatou Badji mu nekk koo xamante ni manager la woon ñu koy jaale ñëpp ak lu làmb di ko jaale képp koo xamante ni rek yaa ngi bokk ci ak lu làmb rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay manager tey nag euh, ñu daral ki nga xamante ni nee naa tey dañoo am invité bu spécial koo xamante ni Sénégal gi yëpp xam nañ ko nee naa leen doo boo tëddee tuggee mbër VIP yi boo ci tuddee rek turam rek nee naa ñooñ dañuy xalangu ndax yàlla moo def loolu mu nekk koo xamante ne tey bu waxee mu neex bu bëree mu neex gars yi duñ koy yàkkante muy yaaw jàll mbër ñu ngi lay nuyu. waaw laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ma sante sama ndey sant sama baay sant suñu Abdou Karim ak di sant sama sëriñ Abdoulaye Wade waaw waa informé bi yéen vraiment maa ngi sant bu baax di leen gërëm si interview bi ngeen may interview ni bon li nak yalla yalla xeb de lu baax di sant nak bon xam wa waa CNG wa directeur ki directeur Alioune Sarr ñoom ñëpp ñoom Babacar Diouf ñoom ñëpp waa CNG yëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ndax seen liggéey vraiment rafet na Sénégal yi rafetlu lu nguñ ko ku melni Aline Sar mu gatt ngalam ko sant yalla bu baax ba baax barke sëñ Fallou waaw yow du nuyo nan ku melni Aline Sar gatt ngalam xam nga Cheikh ki amna lu fi nara wax mais yaw Dial tay buñ ñu doon wax kan mo yaw Dial xam naa ni yaawu jaal moom kenn doo ko tudd moom yaawu jaal moom si làmb mënoo tudd mbër moom doo ko tudd doo ko tudd baa baa ngi jëriñ waaw ndaxte waaw waaw mën naa béy ko mën naa bëre trente mille franc mbaa cent mille sant yàlla quoi ñoom ay mbër yu ki ñooñu ay mbër yu mag lañ man mbër bu ndaw laa ak mbëru animation rek laa woon si làmb ji ba tey yàlla def li li am am ba tey proposé naa imposé naa ba yàlla def li am am ba fu ñu nee mbërëm mag ba ñu ne yaaw jaar fu ñu nee yaaw ñu ne mbërëm mag ba kon am loo xam ne sant yàlla tey su ma yaafuse noonu wala ma wane woon ñàkkul ñàkk kon suba kenn mënut kenn joxe sama exemple kon suba gars yi moom lu yàlla xam doy nit ki nag balaa ñu léegi gën a mën a dara fekk nga nekk champion nekk der boo nekkee der moom ku jóg ma mën na laa appliqué ne waaw ku mel ni diw ku bi xam am na yoo xam yàlla ah champion <laughs> yërëm ah a ah, xoolal sama carrière man si lamb ak samay morom ak fa ma jaar xam nga ko bëri démb kat ba li bëri esat yoon bari démb Diop ay bëri Iba Mar bëri Alassane Diouf bëri Amadou Bari bëri Casamance bëri Guinguinéo bëri Fatick nga ne tas naa réew mi ba pare soog soog a toog barke sëñ Tuubaa. yow ñaata combat nga def. yii la ma bëri moom wax dëgg saa bëri na moom wax ma ko mais waaye moom li def moom lu ma a xamal samay victoire ëpp fuufu samay yaaw nan nga mën a bëree te xamoo ñaata victoire nga am te ñaata combat nga am yaaw jaan. non say ndax say maa waxu xam nga instant bi nii xam nga ku bëri 2004 ba léegi mën naa la wax atum 2004 bëri naa woon ñaari mu dugg cinq euh, ma daal dugg 2005 euh, tamit mën naa la wax bëri naa ñaari combat maa ñetti combat xam la ba 2006 ba 2007 yaa ngi ba tey ñu ñu ñu ñu jëm 2017 xam nga kon am loo xam sant yàlla yaa ngi dégg kon boog man sama jëm sama lu mu mën a xamal daal sama victoire fuuf moo ëpp que bëri nga lu mat si euh, dix combats. ëpp na ko fuuf waaw dix combats waaye maa gay rek bëri lu ëpp dix fois maa gay rek bëri nañ lu ëpp dix fois maag moom waaw gay na lu jege dix fois moom. gay bu dee daan naa ko juróom-benn yoon. bul xaade bu ikri Moussa Dioum te mu ne ko ñu feneen daan naa ko benn yoon. Uh-huh. yaa ngi ak bu Balla Gaye waaw ak Zil Bale numéro 2 Ya, ya, ya. ak ipu bu njaareem ak yaaw jal bu kawlax ak jaddi jaddi ak ser bu yàqu si si ndox sax la woon sax kon yaaw 27 combat nga def loolu ëpp na loolu loolu ëpp na sax état muy waaw xam nga tey dama libre ay mbër daal boo xoolee ñoo si nga kon ku ku mel ser bu yàqu kooku ñaareel laa ko daan ah, yaa yaa ma dégg jaddi jaddi mu dóor ko mu daanu yamb daan naa ko fois yaa ma dégg yaaw jal bu kawlax ñaaroon laa ko daan ip bu njëkk non lim lu mu leen am na ñoo xam ne soo ma waaxoon du ma mën a ëpp na ëpp na sax loolu ëpp na en tout cas lu ma mën a xamal daal sama victoire mu ëpp daal samay ndam. en tout cas la fi la fi lim 31 combat. na loolu sax rek maa am na am na combat yoo mu ko bëri seen régions yi. ay bëri naa ay Guinguinéo ay Fatick ay Ndar ay Casamance ay Pire région Sénégal ñaari régions yi laay bëriwul. non loolu moom. non non non c'est que instant bi loolu la ma daal bëri la xam man ni dafa daan xëy xëy rek nee ma kat dimanche da ngay bëri ndar yaa ma dégg wala dimanche bi da ngay bëri Fatick wala Pire comme combat yooyu te combat yooyu ay bëri doon lay doon mais su fekkee ne ay combat yoo la mais bëri naa combat yu yoo xam ne tamit yaa ma ma si stade bi fii noonu laa siwee si àll bi tamit waaw non moom kon da ma maa dag maa wax man waaye man sëñ bi ëpp loolu. xam man samay combat bu nekkoon dañu ne kat yaaw jaa daan na mbër bi benn combat daan na kii benn combat dina neex mais benn mbër dama siy bëri ak moom lu toll dix fois comme ku mel ni gaynde waaw ndax xam booba temps non ak ak ñoo bàyyi non booba temps amateur yi ñoo doon laaj sama diggante gaynde sama diggante bu dee FM tamit noonu sama diggante yemb noonu sama diggante Jules Baldé numéro bu écrit Fallaye Baldé noonu boo seen numéro te ñu gën a alaj see bi nu écrit Fallaye Baldé kooku maa jëkk njëkk kooku njëkk daan kooku moo tuddee boppam yaa ma dégg sur beneen numéro 2 yaa ak beneen kii nag kii moom moo ngi ne ko ikir mor faram te ñu ko naan alaaji seyte muy garde marché bees yëpp dafa sori yaaw daal ñaata combat lañ la wax ñaata combat nga am yaaw jaal kon xamul ñaata combat ñaata defen nga waaw waaw defet yi moom xam naa mënu wees juróom-ñaari defet moom sama carrière moom juróom-ñaari defet ma kaa wees ndax mën naa liimal ñu ma daan non non du ma ko liim ndax ñu ma daan daanaka mooy loolu yaa ngi dégg waaw man champion laa a ngi dégg champion laa bon gàcce ngaa la ma quoi barke ma yaa mën a xamal daal sant yàlla quoi yaa ma dégg ah sant yàlla dafa mais Cheikh kii li mu wax dafa yomb ñi ma daan ay mooy loolu mooy loolu c'est-à-dire xam nga ko mel ni wuli daan na ma gaynde daan na ma buri daan na ma <laughs> yaa ngi yamb tamit yaa ngi daan na ma non non bëriwul yaa ngi dégg man yooyu jàpp naa ko gaynde daan na ma bëri daan na ma yaa ngi tam daan na ma yaa ngi ak yamb tam daan na ma mm-hmm. ñoom ñëpp ma daan na kenn rek daan si daanul wuli. yaa dégg mais ay ñoom gaynde ak ñoom bodek ñoom yamb ak ñoom silbare numéro deux ñoom euh, kii ñoom commissaire bu balaga Gaye ñu fi maanaam am am am bëri na nit yoo loolu bëri na mbër yoo xam ne mën na leen génne sa làmb yaa dégg te am ñoo xam te bu ñu tuddee ay retraite ah, silbare numéro deux bu écrit Falaye Baldé maa gën a maa gën a làmb ji ba mënu ba mënu tuddee un million sa commissaire di ànd ak Balla sama doomu ndey commissaire maa ko dóor mu daanu jur combat Yékini Bombardier keroog ba ma ko mu daanu la xëy Thierno Faye jël lamb ji bëri erreur bu ma ko yóbbee Côte d'Ivoire si combat Assane Ndiaye daa tar ñu jox victoire mais avant combat boobu noonu fii laa ko mujjee woon daan stade Demba Diop gaynde ba mu gis nga nu mu fa demee léegi gaynde takk na jaajëm jar-jar bi dëkk CNG gis nga la ma ko def kii kay euh, sare bu yàqu jar-jar bi dëkk parcelle gis nga bu mu fi ñëwee ne waa muy mbëru waale sekk gis nga la ma ko won yaa ngi dégg <laughs> yow xam man ma jaax si yaaw yaaw ay def tam laa ko wax yaaw di def ay affaire victoire <laughs> xam waaw parce que affaire victoire nga waaw si sama sama defet nga ne gaynde ma ma daan wuli daan ma ciit bu suma jum daan ma yaa ma de yaa ma yaa yaa ma tamit daan na ma daan mais lu mën a xam ñooñu ma lim kenn moom si daan ñaar yaa yaa muy wuli ak ciit mais ñi ñëpp benn lañ ma daan te ñoom ñëpp kenn ku nekk daan naa ay 6 ay 7 ay 8 ay 9 ay 10 yaa ma dégg mais sant yàlla quoi waaw sant yàlla waaw yow jaal ñu gis ne toloonu nit ñi. kon ni ko nit ñi doxee. Mm. toloonu nit ñi mais yow am benn bayre boo xamante ni daal kenn mënu koo naatamle yow jaar sax moom moo gën a siiw président de la république maam loo xamante ni nag ñëpp dañ ko doon wax yaaw jaal yaaw bu Ablaye Wade léegi sax nekkatul yaaw bu Ablaye Wade yaaw bu Macky Sall la. non non yaaw bu Ablaye Wade la ba léegi loolu moom loolu moom. mais yaaw fidèle nga ah. yàlla na yéex deer moom tàggal moom man ak ay waa kër man moom ku xam yaaw jaal xam si Ablaye Wade man man genre jikkoy Eh, fu fu tooy nga tàgg ak yooyu man mel ma noonu man nag man boobu boo ma jàmm jàppante yàlla rek a tax mm. xanaa man nitu paa bi laa am par boo soxlaa nag ba mu wooye ma ñu añoo animé la spectacle waaye bàyyil Ablaye Wade mm. loolu moom loolu mun ma kaa dégg moom man moom wax dëgg sax ku may jàpp si Ablaye nag ma si jàppante yàlla rek a tax mm. ku may bàyyi tam nga bàyyi ma si Ablaye Wade yaa ma ne kër waaye man moom nekkuma koo xam ne fu tooy rek nga teg man du ma weñ man doomu aadama laa taalib sëñ Abdou Karim Mbacke laa borom ndindi kon boog man lu naa sax laay ñaan yàlla di def saa su ne xam nga man daal Ablaye Wade laa ak waa këram jeex sa diggante ak Ablaye Wade parce que dégg nañ Ablaye Wade may na yaw kër yëmbal la nekk ñi naan kër ma Massar yaaw am na oto oto bi sax na yaaw da ko jaay yaaw tuddee na Ablaye Wade euh, doom mooy petit Ablaye Wade ñu koy ziar bu baax a a baax ñu doon wax est ce que tamit nga ko confirmer may na la kër bu ne fii yëmbal la nekk wala wala kër gi ñu nekk la. non non nee na kër gi asalaamaleykum Fass la nekk wàllum oto bi bokkoon na si mais oto bi Souleymane Ndéné Ndiaye moom moom ko waroon jox. te mujj ma koon jox ndax boobu Ablaye Wade moom booloon Souleymane Ndéné leen Souleymane Ndéné pour mu jox yaaw jaar si 4 Ah, ma waaw non c'est xam rek c'est xam man tamit xam du mun mun du mun wax dara. a naa bis bu yàlla moom dinaa am oto te xam naa yàggatu dara incha allah waaw waaw kër gi moom Abdoulaye Abdoulaye moo ko jënd jox ma ko moom boole Pape Sama mu dem fayal ma ko bureau asalam Fass ne ma yaaw jal am kii président ko la ko jëndal ma ñaanal ko yàlla yàlla guddalee fanam di boobu léegi nag bëgguma kenn ko wax Abdoulaye lu ñaaw même boo na naree wax lu ñaan bo ma si xalaatee dëggal bal bi ndax abdou di kilifa la référence la manam demum France bien sama gënu la ma won bu doon sama sago mu tok Sénégal ji tok kërëm gi nak euh, fan résidence wala bii nekk point 1 nga xamne suma su dem xam rek dem tok fa ba xam nga ba sama xol sedd mu ñu jappar sama ñaamul demam fi fee gënu la ma waaw gënul wax deug ci yalla yaaw jaal dañu gis ni que ni Abdoulaye Wade sa relation ak mom nan nga def ba xamanté ak mom nan nga def ba tuddee sa bop yaaw bu Abdoulaye Wade kan ak kan mo la fa yobbu waaw Abdoulaye la ba ma koy xale la man xale booba ndax ba muy ñëw dari for benn kër paa bu ñuy wax kër paa mbaytin ba maa ngi doon liggéey menuisier xam nga dégg palankaar yi ñu naan euh, ñu daan daaj sama patron waa kër Abdoulaye Wade la woon xam nga dégg waa Ndar la woon ñu ko naan bugul baax ku ku bugul Abdoulaye Wade la ñoom ñoo doon indi ñoom ñoo doon indi Abdoulaye Wade biir dali for benn kër paa bu ñuy wax kër paa mbaytin paa mbaytin boobu nag yàlla na ko yàlla yërëm xaru ko àjjana yaa ngi dégg mais jabar jaa ngi fi la yaa xam ne mais sama ngi fi la Abdoulaye Wade amul mu ngi ko defal boobu nag xale laa mais plancar yi sama patron waaw non non foo la expliqué menuisier laa woon ma ñëw bëgg si bëgg Ablaye Wade di defar plan carré yi gars yi di ko yi ñun Kabirou Mbodj rek mooy gars dëkk Pikine yooyu ndax lu lu lu mu la wax ay ñëw dali xam naa ñëpp di ko topp nag jamono soppi soppi yaa ma ma dugg si làmb ji ñu ne waaw léegi bon sama gars yi dali fort waaw dugg see diw ñu naan naa dugg see diw ma leen làmb ji yaa ma dégg waaw comme lu tax si di jëkkati photo euh, Baye Niass man mu dugalee salaam yi ak photo Ablaye Wade di ko imposé nag keroog ba ma koy di ko lu Souleymane Ndéné Ndiaye euh, euh, gin gi neew sëñ Mor tëggoon làmb fa ma ñëw bëri fa yëkkati ko Souleymane Ndéné Ndiaye xaalis bi may ma ñu ma ma keroog may ma xaalis bi bëri combat yëpp maa daanoon ndaxte boobu temps seen boobu temps sëñ Mor Niang jël drapeau yi du tuddee waa waa kër Ablaye Wade kon dama si am seen Bombardier ah sax day ñëw esat fekk na jour boobu Ablaye sama sëriñ paa yi daf war a mën a recevoir mu yëg ko tribune jàkkaarloo Macky Sall ok laa ko gauche ok laa ko droite mu di ma may xaalis ma téye loxo bi nekk monsieur le ministre mi ne ma naa man ko na compte ba yàgg mu compte compte bu xolum sedd mu dugg sama biir ngem nekkoon xaalis bi neex na loolu waaye bu doon sama sago daal sama audience ak Ablaye daal bëgg naa nga lijjanti ko mu xëy wax ko Ablaye Wade mu xëy am audience ba audience nag keroog bu ma amee nag sant naa si la mu ko def na lépp daanaka benn oto bi daal moo si ñëwul te xam naa ne erreur la woon xam naa ne moom si caméra woon xam naa wiiri wiiri yàgg wiiri ah, dem këram fii mais dama xam ne dañu nekk si nekk bu ñu dem ko ah, ah, kër kër mais après am xam ne jarul koy wax de di jarul daw bay daanu yalla bu tuddee ne dama war a am oto dama koy am yaa ma ne xam moom mooy bind sama jë damay am oto kër ah Ablaye boole na ma ak Souleymane ak kii gars yi Pape Sama Mboub Pape Sama Mboub yëkkat na Ablaye yëkkat na xaalis yu weex tàll ne ko am dama jënd yaaw jàll appartement Fass kon sant yàlla. bébé bébé Ablaye Wade bu ndaw. Ablaye daa jaa ngi daara 6 heures lay wàcc. non turandoo moom lépp fallaaw moom wax dëgg sax lépp fallaaw waaw tur waaw Ablaye bu jàngi ji école bu bu école tëjee bu xëyee day jàngi daara ba bu jàngi jàngi jee fa lay yenn ba 6 heures mu soog a mais ñu ne ñu léegi yaaw jaal bu Macky Sall sa diggante ak Macky Sall comme moo tax nga am audience ak ki nga xamante ni moom mooy euh, président Abdoulaye Wade ex président Abdoulaye Wade. xam nga boo waxee yaaw jaal Macky Sall yi bëgg jaaxal askan bi dëgg la Macky Sall président la kooku am nañ coloré maak moom fu amee coloré moom si boobu mu xam man ko am coloré la ndax lan la xam ne man am naa coloré fii laa ànd ak Abdoulaye Wade 2012 rond-point Castor benn garde corps Ablaye ne ma yaaw sa waay yi ne la yaa ma rek ma dem si buuxantut buuxantut ba jox ko loxo ndax boobu namoon naa ko namoon naa ko lool lu tax ma namoon ko sama audience bi ak Ablaye boobu ma ko lijjantoon sama diggante papa papa ma dem dem jox ko loxo tey maanaam a tax ma ma jox waaw mais bu tey bu duwoon loolu noonu kon aw ma ak moom relation wala te fekkoon tey audience bi ak Ablaye waxuma ko pour mu lijjantil ma ko kon du ma amante moom ko kon du ma ànd ak Ablaye ba pare du waat si oto ba di dem di ko jox loxo audience boobu ma koy waxoon ne lijjantil ma ko paa bi bu ba mu xëy lijjantil ma ko noonu moo paa bi nem pas 3 mois 4 mois ñu am coow noonu ñu daal di raar bu ñu raaree ma dem gis ko dem jox ko loxo ko loolu rek laa ko nuyoo waaw waaye man Ablaye Wade laa Macky Sall moom xam na ne Ablaye Wade laa ndaxte moom lu tax ma ne la moom xam ne ne Abdoulaye Wade la fii laa ànd ak Abdoulaye Wade dem seen ko te boobu moo nekkoon opposition ma dem jox ko loxo colère boobu ma ko ne woon ni yóbbu moom ko mooy président yàlla na ko yàlla jàppale waaye man Abdoulaye Wade laa ak waa këram jeex na gannaaw ba say combat comme que nee nga yaaw say combat dafa bari ba mënoo koo lim ñun lim nañ fi 30 ans nga ne na ko waa ëpp na loolu yaaw sa ban combat moo gën a métti si sa komba waaw sama combat ak yaaw jël bu kolax combat boobu métti na lool ak combat yaa yàlla bu ko lax waaw waaw non c'est xam dafa tuddee bu moom boobu ma dem si biir bi laaj ma ndax boobu tam bëgg na coow waaw xam nga combat ñaari combat yi dafa dafa gën a grave si man yaa nekkoon idol. waaw non man fii ñu ma fi nekk seen idole ah. te bëri maa ngi lu ñoo bëri am na mbër yoo xam ne ñu tuddee seen bopp yaaw jaal pare ne yaaw jaal bu zamba yaaw jaal bu pôle ah, man leen tey boo leen tuddee woon seen bopp beneen yaaw jaal si boobaa pour ma jël may leen sant day neex yaa ka mais mënu leen tuddee seen bopp yaaw jaal ba pare ñoo bëgg na man maa yaaw jaal bu diw ba pare bëgg bëri yaaw jaal bu Abdoulaye Wade loolu mënul nekk fii moom benn yaaw jaal moo fi am Sénégal gi yëpp xam nañ ko jëlal ma kii bi jëlal ma jëlal ma jaal bi waaw fii benn yaaw jaal sant yàlla sant yàlla ndax la ma doon nii toll ma nen maa gën a néew kattan si làmb a a yaaw jaal bu Kaolack boo gisee métti fu métti woon te dama ko daan jël bu reuy mu xey ci dama pap sang bu woyé téléphone ci numéro téléphone yu pale 33 80 li ci desan dama ko àggali yaaw boo xëy nga ñëw pale ma xëy ma ne ko qu'est-ce que si yaa ñun dañu lay jëndee kër ma commencé jooy minu yaaw bu jooy sa diggante Abdoulaye Sénégal xam nañ ko non boobu jooy naa tamit ni na lool ndaxte bëri bu di rafam la bëri dima bëri 30 minutes manque 3 minutes bobu état bi yépp ñu ngi ñu ngi ma xam ne tey mooy si sama buntu boo xam ne tey dafa war a mën a leer ñaari combat daal neex na sama na neex na loolu sama carrière benn bi 2007 la benn bi 2000 entre waaw entre 2008 2009 la ma toj Ndakaaru kon am loo xam ne sant yàlla la quoi moo tax ñu fi ne yàlla yàlla may jàmm man nag niki mom bu comprendre man niki ablaye wad la lu mu soxla manaka naka animer def ko defal ko spectacle waye bal bal ablaye wad bobu dal man da mu ko deg mais yaw jall est ce que tay yenen beuri di def yaw jall dang ko def est ce que di nga dépense ci xaaliss musique kon yenen beuri yi def ndax da nga yaw est ce que mas nga déplacer dum ay casamance ay joual ay mbour def wuti musique est ce que yaw jall def lo waaw no man man nak amna staff bo xamni suma amé combat mm-hmm. lu may duggal ci albi yaw ko def ngeen jall non boko deful gaay agnel ma ñu réré la lamb <laughs> ji sang sangul sanguwul naanoo éliminé la. no da comédien sama comédien am ñu ko bëgg am te amuñu ko dé luma don ni nii am ñu ko bëgg don doon te doonuñu ko kon man bayuma sama bop man ñaar dërëm juma am dërëm dama ko dem joxe sëriñ si mu may ma ñaan ma dama defar sama yaram du def nak nit lu bon wala lu ñaaw fan laay defee nit lu bon dal ma am combat ta am na affaire yu bon yo xam ma duma ko def si sama staff la ko def na bon sama jëm ginaar sa duma ko ray man ginaar bu ko don ray fi ni nit sama soxna am mooy génn mu wo fe nit ñoo ya ya kan? ya kan? rek man man yoy dama ko ñëram tam daal am ni yeen afrique gra yo xam duma ko def ya ma di carrément ne. mos ngaa bëri combat nga sentir ne tey yow daal mystique japp na ko mënoo def dara. man di wax deug sa sama combat bi paase moom sentir na ni mom bi passé ni yakal na. moy combat amu sen Bombardier. wa ban mbër nga ci mbër. non fàtt naa turu mbër ba carrément nettal rek sentir na ko ndaxte ba ma xëyee bu ñu nee suba la combat bi ah ni mo wara jappalé ni mo wara jappalé ku melni <laughs> papa pap Diouf dem na sima pour mu japp ci digul rek mo xal ci mom la ñëkke ñu mu da voyage yi digu nettali rek xëy jall keur mu dikkee ñaa ñun ma yaw sa voyage may ma jall keur Youssou ndur ñun ma yaw tay tay la Youssou war a France man la ilaha illallah man ko ko man fa la jëm. ko ñu japp ni loolu mystique la. wa wa ma xamni man li il y a quelque chose ma daal dem sama ben keur xabu ñu ne Passy ni puis oh. ak sama ben xarit diwaan yi euh, Assane. Euh, wookaam ñun dañoo voyagé man non sant yàlla quoi alhamdulilah rabbil alamin yaa ngi dégg léegi bu may dem ba tourné am benn booy clando bu ma jëloon benn vingt franc boo xam ne sama benn mu jënd si saako ceeb suba am na yoo xam ne yaa ngi dégg léegi après monsieur le maire tëngëj bi daaru ñaa moo dina xaas bi xaw a takku may ma non xar bi ñu ko mujj jënd ñoo mujj jënd xar bi gars yi defar ko foofu ku mel ne Amadou Camara sama doom ndey moo mujj dem jënd xar bi ñoo defar ko foofu yëpp ñoo xëy ñoo indi ko fii mu xëyaat sept heures du matin dem fu may dem ñoo jàppal sama ñaambur ba noonu nag maa ngi jàpp ne man damay am ndam waaw waaw mais bobu la ko nekk sama ben jigéen bu ñu ne Assou Ndiaye Assou ma yaw bobu nga war xamni yow ni di nga xam ko combat di nga ko combat man musuma sentir man ba luma dalé daalee ba ni man musuma sentir ni dañ ma jàpp sa lamb ndax man ci si combat ndax man du ma sama bop am na ñoo xamni sa classe dañ may ñaanal am na ñoo xam ñu dindi dar ne ma yaw sangul takul man tank no bi non am na bagage xam waaw am na bagage xam sax yo xamni man dama ko fat ci kër gi fi barke sayidina xam man bagage xam ko ba dali for ak feneen ak feneen yo xamni xol laalu bitéel yaay bëri bëri. dañ a war. waaw loolu tamit moom moo tax après moo tax après ma sentir ne xam nga lu war am day am mais waaye man sama carrière musuma jàpp man mii jàpp ma si galaaj dëgg la nag fàtte naa ay bagages lu war am day am mais pour nga téema nii non man daal bon sant yàlla quoi mais jëlee dama kaw daal moo tax ba ma daanoo nen nen yi tamit gis nga bu tooyee nen yi c'est que lamb dafa doy waar. nen yi yi nen tey du baax. toog si tànk yi ràcc appel waa ji yëngul su ma appelé gos nit ñi bëgg waa ji déplacé pour mu ñëw waaj ji di ñëw man daa maa dóor dóor ba jeexal dama jàppanteeg waa ji waa ji daan ma ma jóg rek mais lu tax ma daanu man dama koo xam mais am na yoo xam ma ko wax. non non li tax nga daanu ñamal ñu tuuti. ay ndaanaan ñoo ma téye nag ay ndaanaan du ma wax nag ndax instant bi nii nekk goo si pouvoir da ngay xam amoo wéer waaye xamalooy waxee xamalooy defee. da ngay bañ gars yi kii la. waaw damay bañ am na daf maa leer loo ma daan su ko mag daf maa leer ndaxte te xam nga te yaaw bu ne bu xasee ba am ndam ba ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Abdou Karim Mbacke sama sëriñ Abdoulaye Wade tey su fekkee ne bëggoo ko loolu du la arrangé yaa ma dégg ma jël lépp na tokk si loxo yàlla am na yoo xam ne doo ko wax da ngay xam rek. waaw mais sant yàlla ko ñu ma sot nag bon jël naa lépp teg ko sa loxo yàlla man sant yàlla comme dem naa ba bëri ji ba jële fa defee rek alhamdulilah rabbi yàlla mais nag dañu xam ne nii ñi bëgg yaawu jaar xam ne nii lii du sama cuune lu gënoon a bon arbitre ne pour sama garde dóor ma duma ma troxal ma daan wa ba soxna tay bu xey bu dem marché mu am gatti mais ko wax min ma yow la nga commencé non la wara jeex man man non ke la commencé mais que man ka ma dor waji ji dafa dem maa dama jeexaare dama jàppante ak waji te man suma ma leer ni dama am combat ko dama entraîner ko luma ma entraînement bu njëkk ba mais lay da ngay entraînement gaay ñu la nga jox lamb du ñu la nga jox combat ndax Abdoulaye di muy tudd béegi te man vraiment man man mu xamé ku bañ mu tudd Abdoulaye man xamé do ma defal taranga man ndax lepp luma mel noonu gannaaw yalla sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama ñaari waajur Abdoulaye Wade la sotte atteindre le mystiquement xam nga yaaw munu neef dara waaw xam nga yaaw keur gumu dem du bax la tay cheikh fu mu dem ponkal nak ay ponkal dindi seen bagage ni ma yaaw te ay ponkal dindi seen alal di ma may ma xam ni tari dara du bax ni bu lay damay am gem gem damay am nak man sama lam bu leg bu lu may daano damay gem damay am dam sama ne ba daano ba ba àgg ci cumi ko wala ba àgg kër ga nag xam ni yalla moko dogal su boba nak dama demee ne gars suñu borom ko dogal ndax munu na nga bëri waaw ndax li suñu borom koy dogal ndax tay munu na nga bëri am ndam te du ma jëg sama daanu bi sama maanaam sax moo ma jëg sant ndax koo wax mi ne ma yaaw tey boo daanu du la arrangé Sénégal yëpp ànd ak yow staff yëpp di taxaw ñëpp nga daanu mel nii waaw yaa daan da ngay sant yàlla bu baax sant Seydina Muhammad sallallahu yaa ngi ci làmb yi li nga wax rek ku la jàppee comédien nii nga mel nii gars yi la ndax am nga bayre macha allah mais yow est yaa ngi xalaat doon roi des arènes roi des arènes roi des arènes euh, fan laa ko sa xalaatee ma amoon yaram xam nga roi des arènes sama benn nijaay bu ñu ne la nekk yaa ma dégg ah kooku moom ne bul fi yaay mu di bul mu sanaan ay doom yaa ngi mais su fekkoon tey non su fekkoon naan doon ko waaye kon heure bi ñu koy waxati. roi dama koy dégg par force. xam nga dégg xam nga mos nga foon dégg le roi du quatrième <laughs> si samay morom ah kon dama koy ñàkkante ba doon roi des arènes xam nga doon ma roi des arènes. déggoo ma de bu fi état bi nekkoon ñoom dañ leen lu ñu ëpp kattan mm-hmm. doole kese à part kattan moom xanaa ak turu million ba waaw non li ma koy ëppalee man misi ëppale ñu man am na koo ma tout ma may ñaanal hmm. si am ndam di si gis daal kon sant yàlla yaa ngi mais waaw waaw sant yàlla ñooñu nit lañ sax hmm. ay ñoom Balla Gaye ak Modou Lo ñoo ñoom ñëpp samay nit lañ hmm. mais lu mu la mën a man dama dama dama xam sama dama gëm sama yow bon ay xam nga ñu da nga roi des par force su fekkoon da nga naan doom su fekkoon da nga naan doom te du la dara kon heure bi roi des baa ngi sama loxo ji. kon am na ñuy ma de dama ne. xam man sama yax moo nag yax bu ndaw. te fekkoon te ma yoroon yax bu baax. boole ko puuy kon heure bi kenn waxatu ko mais sama benn nijaay moo ma ne bul musa naan ay doom bul musa naan ay kër moo tax yor naturellement. mais mais ay po nag yow nag dafa. daa baaxul. daa bokk xanaa gis nga mbëri ñuy feebaree ak ñuy ñu leen entrer hôpital man te la si ban bañ million nak 1 million duma jarat jaral na gaan su ma ma xëy hôpital am fa une semaine ba 15 jours man daal naturellement la yor. mais bu dul woon dé waaw wa wa bu doon naturellement nan ay doom te dula wañ dara gaay ma gën a ñemee lu métti gën ñu ëpp ñuma fit dak ñuma bëré ëpp ñuma ma caacaay ah lenn lañ ma ëpp doole ba te doole mom suma ko am mo xam ne roi des arènes mom récupérer na ko circulation bu njëkk ba kër bu ko tey si nit ñi kër bu ko tey si nit ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñàkkee keroog laay jël roi des arènes ba mais nag aw ma yaram nit ki nag da ngeen nangu lu yàlla dogal waaye yàlla dogal nii nii ngay toll nga ne bëgg ne non non yàlla waruma teg ma tuuti dama war a yow nag gëmutoo sa bopp nag gëm sa bopp daal ah, maa ngi nii ñii laa toll maa jam ay piqûre pour ma yóbbu cent cinq cent kilos ma ne ko de la vie onze bi laay numéro dama ko móolu ma ne ko les mois rek naturellement naturellement koo dóor ku mu dëju koo dóor mu nekk heureusement am naa juróomi kaawa si lamb ji te tollu nen am na yoo xam te tubaab dafa ne Sénégalais bi kii bu nekkee mbër la te du bëgg a yóbbu Sénégal cent kilos balaa quinze jours mën naa kaa jox mu waaj daal ma ko expliqué si olof ma ne ko man mi ma man ko bàyyi ma si état bi na état bi daal baax na état bi ma toll baax na kooku naanu ma kombir ma feebaru aw ma siburu aw ma tension aw ma sant mën daa sant yàlla ko alhamdulilah rabbi alamin euh, waaw yaaw Dial fan yi daf fii créé benn buzz xam te ne xaw yaaw moo ko créé xaw la mais yaaw nag yaaw waa dekki làmb def seen organisation joxe ay carte joxuñu la war a bàkku yaaw jaar nga dem aw ca xuuma nan la yaaw def seex ba aw ca ginnaaw estade ba ñu daal dañoo jékki-jékki gis yaaw mu takk ay waa sa sër loolu xam nga arène national bi maa ngi remercier bàcc seras bu baax ndaxte yàlla sama xol may fay ndax keroog bu bàcc seras ba bëri booy kayre ma indoon bàcc man ko kii bu dóor xam nga suñu grand la quoi jàpp ko rek daan boy booy ker tamit ker bu ma résibile dama ko ñew takal ko ay sër ñu animer ko ñu ne ko ne ko yow da nga bax moo tax ma ñëw ay sër tay su fekkon té dafa bonon kon bu muy bëri bacc seras man na bacc ki ray ko ben quoi déglu la par exemple ah mais lu mu baaxoon moo na bacc a bàcc seras bu ko dóor quoi jàpp ko dan ker tam su bonon tamit kon ker mo ma résibile ba na na bacc seras mu na ñew ba si moom ma ne ko duma takal ay sër duma ko at ko duma sax jéem taxawal mais dama ko takal ay sër ba pare nek da nga bax moo tax ñu takal ay sir way suma ma ni la mel ko duma ko defal lolu leg arena national bi. mooy kay lan la fee. dafa ñew no dama ñew ba ci arena national bi manam xam man duma togn man musuma deg man xam la ma ko sama force arena bi ma and ak yow nga wara a bëre kii ma def nak su nonu ba tor ba fekk ma yenn ko mais bu nekkee man ak man rek du am ma kenn problème mbir yëpp dama am tooñam jamm salaam nice man legi ñu ñew ci arena national bi ñu ne ma yaawu jall dugg si biir versaire yi. mais joxuñu lu tax jox ñu ma carte ah. am na lu ko war lu tax jox ñu ma carte. waaw ah, non xam lu jox ñu ma carte xamul bës boobu suñu borom la. man bi fay ko 100 millions kii du ba pare man man may siis sam bopp ne non lu tax yàlla di jox kii 100 millions yaa jël di encaissé 30 mille francs ma siy siisu kon yow gëmoo yàlla gëmoo yonent bi waaw yow nag léegi man yow mën na fay ko 30 mille francs yow ngay fay ko 20 mille francs 30 mille francs nga bañee ma ne leen combat kii bi lu mu ma ñëw ñu ne ma yaaw CNG waaw non waaw ouverture saison mën ma ne CNG ak mbëri ko si àndal non lu indi coow laa lay indi de ah, waaw remise de kër ah. de kër ma léegi doo ah. ma ñëw booy keer xëcc si biir verset non booy keer moom si biir fekk damaa ñëw benn nit euh, ma Macky Sall moo dina carte jox ma xam man damaa bokk si làmb ji non non non non la woon si waa këram yi ñëw dina carte ne ma yaaw am teel ah léegi ma ñu ma daal daal si jour bi ma ñëw ko tribune ànd ak ancien mbëri père Degol ne ma yaaw mbëri yaa ngi fay tax ay sër. mais yow dugg. boo xoolee dara la non non non léegi ba mu noor boobu dugg naa ba pare ba si biir verset tax ay benn mbëri bu ñuy wax jëkk saa ne ma yaaw doo tax suñu kàddu lu doo ñu ruube ba ko Pape la ma ruube. Ah. léegi noonu bu waxee benn ma wax fukk ah. ndax man man ko yow xam nga ba nga yor nii su ma ko yoroon ah. du ma taxaw fi di ko lijjanti bi nga bu ma génnee booy kër naa ma patati patata yaa maanaam bon affaire yooyu dañu ko répété ak nangam sam jàpp man ko waa ah la nga wax noonu dëgg répété ngeen waaye man damay dugg léegi may dem bay dugg may dem bay dugg gendarme bi ci yow. Ah, waaw waaw par exemple ma ma dégg ah man mu jëlee ko pour arrangement sama diggante kële te kële bu xuusoon kenn xamu ko par exemple ah, waaw waaw léegi ma jëkki saay dugg léegi bu ma duggee gendarme bi jëkki saay ne ma yaaw CNG teew la boo kayri teew la ma ko chef xam naa ne depuis jamonoy Ablaye Wade ah. yow téyewoo ma booy kayre ma ma téye ah. ndax ma ma jëlee si versaire yi ma toor boobu laa ko teg waaw yaa ngi dégg ah. léegi bu loolu amee toor boobu laa teg booy kayre ndax su ma woowul woon du ma ko ne sa ba tax na suuf déggum la nga léegi ma def samay pexe ba dugg léegi bu ma dugg takk yëg koo tribi laay yëg non koo tribi laay yëg benn sinois mi ne ma naa ko téyel caméra bi léegi bu ma ko téyelee caméra mu cëppeel man tam ànd ba may daw ma daalu ñaari yoon boobu takk naa sër yi léegi bu ma demee tuus tuus tuus tuus tuus tuus tuus na gaa ñu ful bi yóku tombe ne nag moom muy tuus waaw tombe ne xam yàlla tamit ak i waaw léegi tombe ne muy tuus léegi bu tuusee kenn wuyu ko quoi léegi ma xuus fekk ko fa Macky Sall ne tuwaa ko la ma yaa maro kii lu mero eh, fay ba jaaxal xam am loo xam ne sant yàlla kon bokk lu ko non man après ñoom dama leen mujj bàyyi si biir léegi affaire whatsapp non man woowuñu ma man damaa gëm sama bopp ndax man boo waxul sëy waaw waaw waaw non lu ñuy feeñee Tyson daal moo fa jël pied ak Yawou Dia ndaxte boo xoolee Tyson jël pied bi bon mën naa ne Tyson jël na pied Yawou Dia jël na deux waaye nangu naa comme du may suñu grand frère ñun waa Pikine waaw ah, waaw mais mais gars yi tàcc nañu ko foofu ba Tyson jàll comme ni ñuy bokk Pikine dama bàyyi ba Tyson jàll ba pare bu soo boo koy dem bay sii ba ko xaaral ma ñu woon la nakal kuy siis ak kuy lu mel yaa ma dégg loolu bu defati ndax tey bu demee ba nekk njiit dafa war a woo ñëpp boole leen gars yi doon benn yaa ma dégg garma ndaxte la làmb ji boo nekkee njiit bul xaajalee boo xaajalee rek ëllëg di nga gis koo xam ne ku bëggoon yaaw jàll du la bëgg. kon booy kay moom day kii dalay boycotté waaw mën naa la wax ne boycotté la ndaxte même bu ma gendarme yi téye woon mën nañ ne nit kat par force di ngeen bàyyi yaawu jaxal mais xamal tax loolu parce que nga am buzz tey boo takkee ñoom bu ñu takkee yow nga takk buzz bi day gën a yokk moom moo tax voilà léegi man su amee buzz te ñoom ñuy fay cent millions te aw million nag mais nit ki da ngay dogal lu yàlla dogal nag moom mu ngi di fay ko un million mos naa ko ne booy keere nañu wàññi un million li ngay bàyyi ak samay mille francs ci 100 mille francs ah? ah waaw waaw sant yàlla non non mere naa ko mais dëgg naa bal bi ndax dama am staff yoo xam ne nii ñoo ma ne léegi dëggal bal bi ba léegi nii sax fu mu ne boo sa àggoo du ma la àgg mais dama xam mooy loolu man pare naa si dipp booba yaa ngi mais nag ku ma si laaj dinaa la ñëw jaara naesement pour ëllëg ndax man sama sama sago mbër encaissé 1 milliard mm. man mbër yi ànduma ak yi dañ ma fee yaa ngi ma ne bu ñu ma daggee. kon àndoo ak mbëri. non voilà non voilà lu indiwoon wax wax jooju dama ne lu wax ma ne ànduma ak mbëri dañ ma fi mosoon a dagg combat Tyson Bombardier kenn mosu ma woon a kaasal ñu at ma fi si làmb 6 mois benn mbëri mosu ma woon a kaasal loolu tax ma ne ànduma ak mbëri CNG la àndal waxal benn. deuxièmement ma daal di ñëwaat euh, si kii lu mu euh, deuxièmement benn mbër kooku sax waruma tudd turam mooy comme genre photo whatsapp bu mbër yi mbër boobu keroog ma amee audience ak Alla daf ma jiitoon pale non boobu <laughs> sama jaam yi ko tudd laasana. waaw laasana waa Tekki Lamb toppee nañ la mboora. laasana kër bu amee audience ak Abdoulaye Wade ànd ak Pape Diop Bosson dama jiitu woon dama yow suñu saa Pikine mbooloo ma suba am naa audience Pape Diop Bosson suba la yow laa yëbaale fee. Ah, ah, léegi laasana jiitu ma ba pare léegi mu bëgg a dugg ma ne ko laasana yow mën bu fekk ay millions nga bàyyi mu dugg liggéeyam sama affaire léegi nag moom moom tamit nag loolu moo tax moom tamit naru mun nanu jël kii lu mu ne sama numéro dugal ko si whatsapp bu mbër yi waaye man bu ñu ma dugalee si whatsapp waaw moo tax man man bu ñu ma dugalee si whatsapp bu mbër am na si mbër yooyu chaque jour am na ñoo xam maa ngi dégg na ñoom téléphone te te bokk maa ngi ñoom ay whatsapp guuxal waaw damaa guuxal te man li jot ay whatsapp ndax ay whatsapp mbër dafa mel ni ragal tag ay mbër rek yow lan ngay nekkee mbër boo bokk nañ bokk nañ koñ bokk nañ écrit ñu ngeen bëgg kii xanaa loolu moo dootu mbër waaw loolu sax bu la neex sax mën nañ ko def mais damay bëgg nañ nañ koy rafetal nañ koy naaj sax xam nga ku mel ni Tyson ñooñu ay référence lañu li ñu wax ne ku mel ni Yaxya Diop Yékini ñooñu ay référence lañu Moustapha Gueye ñooñu ay référence mais am ñoo xam ne bu ñu ko bëggee si CNC bi ñu waxtaan ak Alioune Sarr si njëkk a teranga bu ñu bu nekk dañoo bëgg poste ni ñu waxtaan ak ñoom te nag man ñaanuma yàlla Alioune Sarr jóge si bopp CNC bi ndax Alioune Sarr bis bu jógee si bopp CNC bi am na mbër yoo xam ne ñoo ngi leen di aj ñu dem këram di ko neexal Sarr ne déet loi rek teg si yoon kon boog tey boo waaw yu koy neexal mu aju nee na mukk nañ ko teg si yoon rek naax am pagaay mais du ma wax Ya, am mbir yoo xam ne bu ñu leen ajee dañuy dem kër Alioune Sarr di neexal di ko baab Alioune Sarr day aju leen mukk yoon rek man aj mi ma fi juróom benn weer mais Alioune Sarr dafa topp yoon tey tey su fekkoon tey tuuma woon est-ce que ma aj mais bañ ma ajee ba léegi dama normal tey bu ñu jëloon euh, CNG bi jox ko mbër ñu aj kon samay staff wala samay supporter mënuñ dem kër mbër ma ki yor CNG bi mu nekk mbër ma kon dootu ko ñaaral de mais bu nekkee Alioune Sarr la da koy teg si yoon boo jalgatee lay teg si yoon waaye bu nekkee mbër mooy affaire ñu aj ko yow boo dégg bu ñu joxee 500000 mbaa 1 million nga ne garaawul kaay nañ ñu kii leen par exemple waaye bu dégg Alioune Sarr bu nekkee bëgg nañu làmb ji dem si kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alioune ma suukar ko bàyyi ak réew nañ ko bàyyi ak CNG euh, bi yi nga xam ne dañuy bëgg di diirante ma màgg nañ ñëw ñu waxtaan moom ñu jéem a jox poste ñu jéem a xool affaire lu ñu koy bu nekkee dag bi dafa seer dagg mbër daa bëri nañu waxtaan ak moom ñu ne ah papa Alioune Sarr wala docteur Alioune Sarr nangam sangam léegi dañoo bëkkat nii ak nii ak nii nga defee ko nii ak nii ak ak nii mais Alioune Sarr mën na jàng ba yéey kayit yor na euh, hôpital am mbële di ko gérer kooku dafa soxla xaalisu mbër. leneen li mooy yaaw ah, xaalisu mbër dagg-dagg yi bu ñëwee. Matar Ba man ko koy bu baax a baax mon ami mo ndesal mo nami mo ministre. waaw waaw leen li moy li nga xamanteni wax deug yalla yaaw wax dañ la fay defal lo xamanteni ni ko defal kenn. moy ko xamanteni ni star planétaire. suma ma star planétaire sax xam fu mu jëm. Youssou Ndour. tay bu nga toogee jékki-jékki rek mu ne jaral nga ma song yaaw jaal cay li loolu la def si yow. gatt nga la ma te Youssou Ndour danaka lama jappé ablar jappé jàppee naa bo xolé ñu muy liggéel ñaati personne lañu yaa ngi ñu nekk ay responsable nekk ay borom kër kon juste dama koy ñaanal war a guddi fan di ko ñaanal télévision bii mu am na si am juróom-ñaar mu juróom-ñaar suñu fàllu yi ba ma wooyee sama xol dafa sedd. yow ba wala dangaa jékki-jékki dégg su ma ko neex def ndax bu muy ibité FM di ma fekk hôtel de ville di ma fekk palais ma ne ko Youssou mi ne man naa ma ko télé loolu du tey démb la woon. mais moom ba nga toog tekki ah. euh, toogee. Mm-hmm. jékki-jékki rek dégg sa mu les. waaw bon ñu ma woo dafa bëri mel ni dama bëri ba daan ndax ñu ma woo téléphone kenn xam ne mu toll man daal di ko ñaanal yàlla lii muy woy yàlla yokku. non jaral na ma sóoru yow jàll xam nga si sama boobu noonu mu si woyee. Ah ah. ba àgg foofu ji bëri tëdd. waaw jar na ma sóoru gaynde jar na ma sóoru yow jàll. xam am na loo xam ne sant yàlla la santal yàlla sant say ñaari waajur sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem birsi toj ko keroog ba ma ba ma yëpp birsi ma ànd ak ñoom Baboye ñoom Balla yaa ma de ma ne ko dama ko loolu laa ko waxoon ci kanamu Gaston yi ngay yóbbu ëpp ñu ma coow sama jaal bi naa plus de un million et quelque uh-huh. cent euros cinquante euros dix euros vingt euros ñu mën a leen nag ku bëgg a photo mag dama leen photo waaye ku bëgg a photo yaaw jaam uh-huh. ma mu ñàkk maa gis uh-huh. ñëpp daa ma jàppee ala jàppee naa ko man ndax ma yëg laa yëg yaa ma def xulóo ma xeexu ma histoire man ku ma yëg. ñoom laa yëg ku ma yëgul man vraiment mu xulóo ma ak yow xeexu ma ak histoire ma ak yow. en tout cas daal fu Youssou Ndour teg tànkam si lu baax. man maa ngi fa pour jàppale ko. ñu xeex yaaw jaal moom man xooluma leen boo boo déggee bojo bojo bi boo ko déggee rek sa xel war na mën a yee bojo bojo Youssou Ndour bi conseil na ku ne boo ko dégloo bu baax baax rek di nga xam si ban teg ban tànk war a mën a teg waaw boo boo boo boo moom wax vraiment moom wax na non sant yàlla ko amee na commune Youssou Ndour nañu koy ñaanal yàlla wër ak guddi fan boo xoolee marque bi ñu muy yóbbu sant yàlla loolu xolam la kon moo commune waaw di ñaanal yàlla Sénégal am jàmm di ñaanal yàlla eh, sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla guddalee fanam si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ay njabootam ak bépp taalibe boo xam ne yaakaar na sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla may ko wër ak guddi fan di ñaanal yàlla nag sama sëriñ Abdoulaye Wade di ñaanal yàlla nag sëtti maam Thierno Ibrahima Mbacke borom daara muskimi Ibrahima Sall directeur SICAP kooku moom tam am lu ma jàppalewul di ko ñaanal yàlla nag lu mu lu muy yóotu lu mu yàlla na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam defal di ñaanal nag kii Youssou Ndour si lépp loo xam ne dugg na sa rek yàlla na ko si yàlla may ndam ndax man dama nekk koo xam ne man kat ñu ma amal jàmm laa laa amal jàmm euh, Cheikh Amar yàlla na ko yàlla may taw féex yaram bi féex bu baax a baax a baax ndaxte kooku tamit kilifa la moom dafa maa bëggal boppam depuis jamonoy Ablaye Wade kon ñooñu noonu dama leen ñaanal yàlla a gudd fan ay ñoom Sira Dia ñoom ñëpp maa leen ñaanal yàlla ñoom ñoom ñëpp maa waa Sénégal yëpp ñoom Farba Ndiaye ñoom ñëpp Tracer yi ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm yow daal xam ne di sant nag waa Boun Araya Dial waa Pikine waa Dalifor suñu waa équipe Pikine mbooloo nag maa ngi dépp mbër bu takk ñu dem bu Pikine yàlla na yàlla may ndam nga gis ma nga ñàkk maa gis mbaru yëmbal yeeg mbaru buuni képp ku si am combat yàlla def tam nga am ndam nga gis ma nga ñàkk maa gis man daal maa ngi ñaanal yàlla Sénégal ba am jàmm affaire lutteurs activité yi nañu woo gars yi gars yi doon benn mais bu ñu xaajale xam nga tey boo xoolee kii euh, kii dëkk géej waaye kii ko yàlla may jàmm yàlla na ko yàlla may tawfeex ndax tey bu demee ba gars yi jël ko engagement bi vraiment bàcc seras am na si wàll ndaxte euh, dàq na dox na si ay jéego quoi xam nga dox jéego sutura moo dox jeego boo xam ne. yaaw lan nga ñu may yaaw la nga ñu may. waaw lu mu ne lu mu nu may laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam tur bi fu mu àgg yàlla na seen euh, kii bi inférieur bi àgg. si kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa génn gi ndak sa génn gi ndak sa génn gi ndak laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ba ma sante sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke sant sama sëriñ Ablaye Wade sant Ibrahima Sall seeti maam Cerno Birahim Mbacke sant Youssou Ndour sa génn gi ndak dama ne gaynde bu ñuy soow maa ko duma daan Jules Baldé numéro 2 maa ko duma daan Bosé numéro 2 maa ko duma daan Tafaye Télé maa ko duma daan eh, yaaw jal bu Kaolack maa ko duma daan Ipo bu Njaare maa ko duma daan yaaw jal bu Kaolack maa ko duma daan saret bu yàqu bu CNG maa ko duma daan commissaire bu Balla Gaye mu dóor ko mu jaaxan Ipo bu man <laughs> c'est que instant bi sama xol boobu sama instant bi merci beaucoup.